mb salaamaaleykum tey jii dama amati gan gu mag gan gu ma neex euh, gan gi li ko def gan gu mag xam nga jaraaf c'est le club le plus titré au Sénégal le club le plus titré au Sénégal capitaine ya jaar ñëpp dégg nañu wiiw je disais à quelqu'un le jaraaf euh, va vers un titre tous les trois ans loolu moo indi la jaraaf a gagné le plus de coupe du Sénégal le Jaraaf a gagné le plus de titres de champion du Sénégal au départ de 70 nag ma ni bu leen ci dugal titre foyer France Sénégal yi ña nekkoon foyer yi ñoom moom loolu ñoom Abou Diop Abou Diop sax fekk ne Jaraaf ñoom Yatma Diop ak ñoom Alioune Diaw ñoom moom titre foyer France Sénégal yi ak ñoom Sunkaru Traoré kon bu leen jox titre foyer Jaraaf de Dakar Jaraaf 69 70 mais ci biir titre yooyu am na ku ci gën a gradé waaw parce que xam nga il y titre nga gis ko am titre yu bare mais dana ci am ci titre yooyu ku ci am grade boo xamee ni ñu bari amaguñ ko grade bi moo di lan tey jii la performance la plus africaine au Jaraaf c'est une demi-finale de Coupe d'Afrique des clubs champions nous sommes en 1983 Jaraaf def ci lu rëy en compagnie de Pape Diop éliminé Africa Sport d'Abidjan ci performance boobu Cheikh Seck ma nga ca arrêté trois tirs au but de l'Africa ici à Dakar après le 0-0 d'Abidjan on fait 0-0 à Dakar Cheikh Seck trois tirs au capitaine à l'époque Pape Moussa cette année-là il gagne aussi le Cabral à Nouakchott en compagnie de Thierno Youm en compagnie de Amadou Diop de Oumar parce qu'à l'époque le Jaraaf était déjà l'ossature de l'équipe nationale du Sénégal ku dem Coupe d'Afrique demi-finale ossaturé sa équipe nationale kon le capitaine du Jaraaf le plus gradé laa indi tey demi-finale de Coupe d'Afrique Pape Moussa Ndiaye Pape ma bàyyi nga nuyu gaañ ñi la ngay gis certainement depuis match yooyu waaw ñu bari depuis Africa Sport d'Abidjan dëgg la depuis Kotoko de Koumassi keroog keroog sa deuxième bi bi dama jóg taxaw <laughs> sa deuxième bi bi ma koy commenté fi ma toog uh-huh. dama jóg taxaw dëgg la muy le deuxième bi qui battait le Kotoko de Koumassi 2-1 dëgg la lay boobu ba léegi Pape Moussa Ndiaye am na ñu koy dégg ñu koy gis très peu. ba mhm. cette année mu dellu si à la tête du Jaraaf. parce que il vient euh, comme un des parfaits lieutenants de Cheikh Seck qui est président. Mhm. Pape Moussa est le président de la section de football ma ni Lamine Diack su ko déggee dana kontaan. parce que mhm. Lamine Diack dafa daan wax eh ñun sonn nañu tey mag ñi. yéen xale yi kaay leen jël équipe bi. Cheikh Seck ak Pape Moussa Ndiaye jël. Pape ma bàyyi ñu nuyu soppe yi xarit yi. maa ngi lay remercier. Ndiaye si invitation bi. jërëjëf Ndiaye. dama si kontaan au-delà ci kontaante bi honneur la pour moi. jërëjëf Ndiaye. parce que quand même j'avais comme tu as dit disparu un peu de la circulation du milieu sportif wax nga mais en fait disparu sax c'est un boo xam ne dafa xaw a kii mhm. parce que toujours mhm. j'avais maa ngi woon si biir section yi waaw bu ma ñëwee bu ma soxla ma ma taxaw way way remplir sama rôle wax nga dëgg nuyoo bi nag dama koy def di ko jëmale si samay xarit. waaw di ko jëmale samay am di jàmba. wax nga dëgg di ko si sunuy supporter wax nga dëgg bu ñuy wax supporter damay commencer par supporteru jaraaf yi. wax nga dëgg maa ngi leen di nuyu. wax nga dëgg. ba pare di ko dolli di nuyu sa PDG. jërëjëf Elimane. waaw Elimane laa koy woowee. sa xarit waaw sama xarit. waay waay Elimane laa koy woowee. Youssou sa xarit papa ji Elimane la tudd mais dans un waaw dans un cercle restreint boo waxee Elimane rek ñu xam Elimane ji. jërëjëf Elimane ji si boole Ndiaga Ndour wax nga dëgg di si boole Bouba wax nga dëgg ñoom ñëpp nekk samay frère wax nga dëgg laay kontaan naa si invitation bi jërëjëf jërëjëf vraiment jërëjëf bi nga ma woowee ne ma dama lay invité dama fier mais bon mais yaakaar moment boobu tout à l'heure je disais à un de ses amis Pape Moussa laa invité mu ni ma oh Youssou dafa dem Chine waaw mais bu ñëwee dana xool émission bi très bien mais Pape dama ci euh, dama la jox loo moom waaw dama la jox le moom invitation bi. Mhm. yow yaa ko moom. dëgg la te tout à l'heure danaa rappeler pourquoi nga moom ko. dëgg la voilà Pape Moussa li tax ma ni invitation bi moo ko moom mën ngeen fekk au jaraaf ñu bari titre titre mooy lan ku la ni eh j'ai été champion fois kii ni la ni j'ai été champion fois mais moom ci kanamu borom titre yooyu c'est le plus gradé. Mhm. parce que c'était le capitaine du jaraaf demi-finaliste d'une Coupe d'Afrique en 1983. mais gëm naa di Pape Moussa dorewul jaraaf parce que gis naa ko ma ni Pape Moussa li mu footballal Colobane nawetaan footballu ko sax jaraaf dëgg la mu ni ma nag li li li li écourté d'ailleurs mu teel feeñ au jaraaf dafa amoon blessure nawetaan ci Colobane kooku de xam na la kii wax loolu non kii wax loolu moom xam na la kooku xam na ma <laughs> parce que dama koy wax souvent uh-huh. Ablaye dama ne uh-huh. man dama football ak mbay Fall xale waaw ñu ngi woon cëriñ Cëriñ Cëriñ si non match koñ. équipe koñ match koñ. yàgg mbay saa ci benn allé benn tali noonu rek. nekk suuf ñu fay football si booru jumaa ji. est-ce que jumaa Cëriñ bi. yéen ñaar ñëpp dekk ngeen capitaine Jaraaf. dëgg la <laughs> mais boobu époque. waaw man nag après bi ma demee université man dama subir une mutation morphologique. waaw donc euh, sama technique. Mhm. Euh, xaw a wàññeeku. si si ma jiital doole bi. arñi bi xa xarañ bi. ah way way ah loolu laa jiital. mais bu ma nekkee xale moom. Mhm. dama nekk cadet di football senior. est-ce que si nawetaan. est-ce gis nga ki ma tegtal sa blessure. waaw dafa ne bi mu gisee Pape Moussa Ndiaye. mu nekk demi défensif au jaraaf. Mhm. lu adversaire defar bu yàq ko. mais dañ ko def contre nature parce que Moussa Ndiaye c'est quelqu'un qui faisait le jeu. Mhm. moo tax bi ma nee. yaak mbay faal da ngeen àndoon di football ma gis ci poète bi waa ji wax. non kooku kooku moom. xam na la ah. am na am na ku ma yaakaar sax mais du ma wax kan la. <laughs> voilà gaañ voilà gaañ mi ngi ni Pape Moussa laa leen indil. te xam nga euh, un capitaine léeg bu julli jotee mën na ko kaay jiite. xam nga choix capitana ah, daf ci am ñu pointillé waa ji daf la naan du ma tànn su ma dee tànn capitaine ki nga xamee ni moo ci dàq football damay tànn ki gën a sell. ki nga xam ni bu waxtu julli jotee mu julli ki nga xamee ni bu wax jotee mu wax au nom du groupe ñëpp kontaan moom profilu euh, capitaine boobu la Pape Moussa nga ñëw jaraaf ban année. jaraaf maa ngi fa ñëw 77. 77 di football Sandial. Mm-hmm. di plateau. Mm-hmm. gagné coupe coupe yi ñu teg si nawetaan yëpp. nekk avant centre. ak Sandial. ak Sandial ah tu avant centre la avant centre la woon. ci équipe Sandial waaw gis nga de. nekk fa avancé nekk meilleur buteur nawetaan. ce que. mais boobu maa ngi université. Ah, ah. en 77 waa 77. waa Gorée ñoo jëkk ñëw jël si ma. Gorée Gorée yëngu nañ ma dem Assane Diouf. Ah. def naa fa benn jaar jaar def naa fa benn suba entraînement. tu m'apprends tu euh, def naa fa benn suba. moom ma jëloon defe naa Malick Ndaw la de. moo a yóbbu. a du flair. parce que boobu maa ngi maa ngi université. Mmh. te jaar na de la fosse. waaw mu gis ma mu ne ma kaay bi ma ñëwee ma def fa benn jour ma daw. Mhm. parce que sentir ma woon sa bopp si carrière football jàng bi laa ko doon privilégié. daal est-ce que est-ce que. ma toog nag après waa jaraaf ñëw. jaraaf de jaraaf ñëw. jaraaf ñëw ne ma yow. <laughs> bi yoon lan wala fixé encore ils n'ont pas réussi parce que tu n'arrivais pas à concilier. Mhm. sport et études que boobu universitaire nga. mais ak nga dem lan moo lan moo la dem. loolu jaraaf li mu njëkk a yóbbu foofu mooy bi may nekk université. dama dem seeti boobu Ablaye Diop Matar mooy président Sandial. ah d'accord mu nekk faculté de droit. si si benn bés ñu taxaw koñu Sandial li ñuy wax bawu Sandial bi. Mhm. mu woo ma ne ma dégg naa ne da nga nekk faculté. mais jaaral kër ga. ab Ablaye sunu sëriñ Dakar bi moo ma cox ma fay sama entrée université. ndeysaan cox ma nag livre documentation yi moo def si fag de droit parce que fac de droit laa doon def. est-ce que mu yëkkati yëpp cox ma ko. Uh-huh. ba nu paree ndem si yàlla amen doy. Uh-huh. nit ku baax. amet waaw taxaw nag ñëw ne ma yow jaraaf nga jëm. noonu laa demee jaraaf. est-ce que waaw en 77. 77. 77. waaw. yaa ngi ñëw fekk génération ñoom Badou Gueye. exactement. Mbaye Fall. exactement Sylvain wow. Sylvain Combe benn benn Camerounais. dëgg la xam naa ko grâce. Cheikh Fam mais Cheikh Fam vous avez déjà joué. waaw Cheikh Fam joué nañu. waaw euh, ñoom Mbaye Fall. Mbaye Fall euh, non fekk Mbaye Fall dem sax. en France waaw Mbaye Fall dafa dem France après dellu si waat. waaw voilà. nga fekk Mbaye Fall dem en France waaw d'accord mais boobu à l'époque même ay Demba Mbaye ñu nga fa. Demba Mbaye. Demba Mbaye mu nga fa Birane Ly. joué na ak ñoom. joué ak ñoom waaw joué na ak ah ñoom. ah oui ah oui. oui oui. j'imagine que avant nekk capitaine dana am trajet bi. trajet bi génération boobu fekk yow génération boobu nga fa fekk. yow da nga nekk entre deux générations alors. waaw nga ñëw fekk ñuy dem. waaw ak ñuy dugg si. Mhm. nga nekk xam nga boo xoolee jaraaf sax souvent génération dañuy emboîté. Mhm. dañuy toppante nii. wax nga dëgg bu ñii di pare dañuy joué ak ñii un an deux ans. ñeneen ñi ñëw. exact dugg. ba boo ko xoolee ba ñun bi ñuy pare ñoom Moussa Badiane ñoom Mansour Ayanda. Uh-huh. ñoom Lamine Sarr noonu noonu lay génération yi di duggante daal. dañuy imbriqué imbriqué. oui oui oui alors Moussa Ndiaye su ma leen ko indilee am na ñu ko gis saf gëj gis ça fait trente bi muy nekk capitaine Jaraaf xam nga li ko indi tey. Jaraaf dafa jógee ci Coupe d'Afrique bi coow li xaw barewaat d'ailleurs li ma ci neex ren moo di Euh, quand Jaraaf et Jambaar avaient été éliminés dafa am coow alors que nit ñi il s'en était détourné ah <laughs> la participation des clubs euh, sénégalais euh, en Coupe d'Afrique le public s'en était détourné mais bi yoon dama gis même ñu bokkul Jaraaf interrogé wu qu'est-ce qui se passe pourquoi nos clubs font pigeon sur le quai chaque fois qu'il s'agit de Coupe d'Afrique pourquoi bu ñu yegsee rek daal di génn Moussa ban ban approche nga ci am yow def une demi parce que gis naa la ngay yëngal ci di interroger wu. waaw qu'est-ce qui se passe. tu as même posé la question aux entraîneurs. liir mm-hmm. ah, lire naa la quelque part nga ne léeg-léeg da xool le club sénégalais qui n'arrive même pas à aligner cinq passes six passes dans un match. nga yëngal tu te poses la question. ban mm-hmm. explication nga ci nga ci gis. man explication bi mooy xam nga li tax coow bi xaw bari dañu xawoon a yaakaar. man mii sax. yaakaaroon nga. yaakaaroon naa parce que def nañ benn conférence de presse bi ñuy préparé kii bi ma ne man sincèrement ak équipe bii ñu yore. ak club bi ñu war a taseel. Mhm. ak tirage bi ni mu demee. Mhm. ñu joué match aller là-bas match retour. Mhm. ma normalement ak sunu effectif bi war nañu jàll. wax nga dëgg mais laay jàlluñu. wax nga dëgg jàmbaar noonu laa ko xalaatee structure bi mu nekk. ak li président bi di def. ak di ma gisee jeu bi. ñu nuy wax euh, équipe bu Burkina lay taseel. waaw ma day jàll. waaw loolu moo xaw a coow bi dañ ne jàmbaar ak jaraaf bu nu jaarul si cette situation la question. bu nu jaarul kañ la ñuy jaaraat kañ la ñuy parce que dafa def ñun ñu jël club bi. waaw ñan ñoo ko jël. Mhm. Cheikh Seck. Mhm. ñu jël Ablaye Sarr mu ngi fi woon. l'un des plus grands entraîneurs. exact de ce pays. il y a beaucoup d'expérience compétent. waaw kun ko booleel Amadou Diop. Mhm. Boy Bandi boole ko Mansour Ayanda Léopold Diop. man ma nekk président section. waaw on peut pas faire équipe bi am na. bon circonstance atténuante bi mooy. président Cheikh Seck dafa ne ma woon. Mhm. Pape cette année c'est une année de transition la. Mhm. donc nañu defaraat équipe bi. Mhm. donc en fait on a voulu brûler les étapes. mais n'empêche Ablaye. y a un malaise. ci football sénégalais. wax nga dëgg. y a malaise. parce que man pour man. formation bi ñuy def. dafa des. ba pare jour yi di génne léegi. donc man de di nga fi gis ay mbay fàll. Seydou Ba. wax nga dëgg. Christophe Sagna. wax nga dëgg talent bi. Grand Mbodj. talent bi dafa des. dafa des. talent bi dafa des. mais talent bi li li tax mu des euh, euh, euh, Pape Moussa. waaw defe woon li jàmbaar di jooy parce que jàmbaar buy dem Coupe d'Afrique. Hmm. nga ne ana Idrissa Gana Gueye ñu ni dem na. ana Pape Ndiaye Souaré dem na. Hmm. ana Kara Mbodj. Hmm. dem na cest à bu dem Afrique jotee. tu te compte équipe bi dafa faible. Ah, ci ay départ defoo ni loolu parce que la jaraaf. a été pourvoyeur de joueurs de clubs d'Europe depuis des années. dëgg defoon ni loolu aussi mi ngi loolu tamit am na mais xam nga jàmbaar ñoom seen politique du woon sax bokk ay championnat. waaw bu ma bu ma gëstoo bu baax. waaw moom dafa def formation lay def. waaw formation lay donc résultat yi muy def c'est appréciable. waaw Idrissa Gana fu mu boobu demee Lille. dafa war a dem Lille. oui jàmbaar moom da nga ko jël def ko un cas particulier. oui oui ñun suñu problème mooy. bu ñu demee renouvellement bi dafa yéex. Mhm. parce que toujours xam nga gars yi bu ñu ñëw tànn dañuy tànn maire mhm. donc amuñu formation boo xam ne dina am suivi. oui oui tax muy am décalage. balaa ngaa mën a defar équipe parce que équipe bi ñu yore bu ñu ko yore woon dans deux ans bu boobaa sûr et certain dinañ sori Coupe d'Afrique. dans deux ans dans deux ans. est-ce que joueurs yi dinañ fi toog. duñ fi toog parce que xam nga lu xew. Ah. li ñuy wax ne léegi dafa Sénégal dafa bari ay taafenke <laughs> nu nga koy waxee. te fekke te fekke da ngay gis waaju ñëw. <laughs> waaw dem nekk si benn benn équipe. Euh, nekk si benn euh, pays. waaw jékki-jékki rek pour def xaalis mu ñëw jël ñun xam nga lu ñu dal cette année. Hmm. non cinq meilleurs yu joué final. Hmm. am na waaju leen fi jëlee. coupe du Sénégal. waaw utal leen visa yóbbu leen xam fu leen yóbbu. Hmm. ay ay Boulogne je n'ai rien contre Boulogne. waaw Boulogne sur mer pour ñu def ay tests. jóge fu mu yóbbu leen Créteil. mais xam nga loolu. avancé lu football Sénégal loolu dañ ko war a bañ. ñun fekke wuñu ko nag. parce que si période kii bi la. bu njëkk jour yi bala ñu daan dem. waaw dañ daan prouver quelque chose. léegi au biberon la ñuy dem. waaw ah, bu ñu nekkee ci biberon bi. Ah, xam nga cano yu bi muy dem Laval. ah oui ñëpp ko bëgg booba temps toj na toj na toj na non bi muy dem def demi finale coupe d'Afrique. waaw coupe d'Afrique waaw Laval. Ah. Monaco laaj ko. dafa demi finale coupe d'Afrique. Laval a gën a gaaw rek. mais dafa doon dem Monaco. Monaco Monaco à l'époque. Euh, équipe bu mag la waaw booba temps équipe bu mag la. équipe bu mag la oui oui. donc loolu nag la ñu dul permettre léegi. wax nga dëgg te nag si au niveau des entraîneurs laay. Mhm. xam nga dañ ko dul wax. mais boo gisee football bi actuellement football bi rafetul. Mhm. rafetul non wax nga koy temps de journal observateur bu tey maa ngi lay liir nga naan duñu équipe yi doo ci gis équipe bu teg la juróomi paas mënul nekk benn ñaar mu dem ci adversaire benn ñett mu dem ci adversaire mënul nekk waaw dafay te loolu mhm. man pour man entraîneur yi ñooy responsable parce que xale yi léegi xam nga ñu bari seen jàng soreetul mhm. gis nga déficit boobu nag aussi waaw waaw c'est fondamental ñemewuñu ko wax nag waaw mais am na ci importance gis parce que football léegi xel la wax nga dëgg xel la damay wax toujours toute proportion gardée. defuñu comparaison mais booy xool ay Messi ay ñuy football mais ñooñu li ñuy wax lecture du jeu. waaw lecture. photographie. ñoom dañ koy déjà dañ koy intégré comme ordinateur. wax nga dëgg. balaa ngaa jot pa bal bi xam nga ki ngay paas. wax nga dëgg. le ballon court plus vite. wax nga dëgg ñun tolloo gudd foofu. et souvent damay wax de. <laughs> su suñu football ak eh. footballu jeneen ñi. tour bi rek moo leen boolee wax nga dëgg <laughs> mais eh, euh, du benn. du benn du benn du benn. c'est pas que je suis sévère laaj. mais dama bëgg def benn constat boo xam ne. Mm-hmm. si on ne le fait pas. Mm-hmm. lii répété nii ñaaw na de. laaj tu pas. ñëw rek premier tour. premier tour mais man pourtant nag Moussa gis nga man. man euh, xam nga lu ma ci wax. dama ni mm. euh, Ghana. Mm. club le plus titré. en Afrique. Mm-hmm. teg lay ñetti coupe du monde. Euh, ku mu éliminé. waaw vraiment du et d'ailleurs les Ghanéens respectaient tellement le Jaraaf. quand je les ai vus réagir en fin de match bi. Mhm. dañu mel ne que ci ñoom. tellement ils respectaient le Jaraaf ils avaient peur parce que gëmoon nañ Jaraaf mën na leen éliminer le Jaraaf n'est pas passé mais man ku ma ni Ghana moo éliminer sa représentant ci man du gàcce parce que Ghana moo gën titré même même ak Burkina Faso dama ni circonstance atténuante bi aussi moo de coupe d'Afrique te am nañu ay club yu miin yoonu Afrique bi jàmbaar dafa digal mais nag euh, euh, pour yéen Moussa du gàcce ah. waaw du gàcce. il y a 30 ans Ghana moo lay éliminé yow. waaw waaw mais. waaw bi ñu éliminé woon. ak bii Ghana du benn moo tax d'accord ak yow. <laughs> booy wax ne le plus titré. Ah. moo ñu éliminé. mais boo xoolee force yi. sur les deux matchs. waaw Ablaye sur les deux matchs. sur les deux matchs. on mérite de passer. waaw c'est sûr c'est sûr te te maa ngi koy wax damay wax ne. Euh, franchement bu ñu doon joue cinq fois six fois équipe bi du ñu gagné. équipe bu kii bi équipe bu Ghana Ghana bi parce que duñ ne la nekk rek duñ ne Ghana la nekk. Mhm. mais dañuy xool li fa ku nekk li nga yore. si mhm. force ak faiblesse. waaw lan la ñu opposé ñoom. waaw dañu dem foofu. ñu toog jouer vingt cinq minutes. match àll bi match àll bi maa ngi toog si tribune waaw ma toogandoo fenn ma ne ko gars yi laa nañu Ghana yi laa doon wax. tàngaay boo xam ne. Mm. ba nga xamoon Abidjan. waaw waaw Africa bu ko gën a pire. parce que lii doon nokki. way way ma ne euh, équipe bi lâché na ñoom ñu ngi daw di faxastalu si bal bi ba public bi commencé di leen yuuxu. il paraît mais moment boobu ñun tamit dafa fekk ñuy football di dox. ndax tàngaay ndax tàngaay. bu ñu amoon accélération tuuti déjà match aller bi résumé na ko donc bu ñu wax rek si turu pays yi Sénégal. Mm. potentiel am na fi. mais Ablaye liggéey bi moo des. waaw liggéey bi des liggéey moo des li Moussa Ndaw doon wax démb. Mhm. Euh, boo yoree terrain yi ñuy entraîné amuñu ko. waaw conditions yi ñuy entraîné amuñu ko. Mhm. démb jub ñun dañuy ñëw. day ne huit heures dix heures. Mhm. mais balaa ñëw pare ñaari tale ngi taxaw. pour pour pour jël terrain bi bu nu yokkoo deux minutes rek ñu commencé yuuxu noonu lañ koy defee ñu dañuy dañuy entraîné midi quatorze heures. si temps bu tàngaay. waaw kooku quand même ay ay nit la ñu. way di 14 heures gëj nañ ko di football. Mhm. parce que du temps pour football. du temps dañ siy football. way way donc 30 jours la yore même bu amee encadrement am na loo xam ne dina ko rëcc. wax nga dëgg. donc laay li ñu li fi. li manqué dafa bari dafa bari. <laughs> dafa bari Ndiaye dafa bari il faut ñu jéem nag toog benn wax ko. way way wax ko jéem a xul mais. way way Diagne <laughs> Moussa yi xam nga ku wax feeñ li tax ku wax feeñ maa ngi soog a gis lu ko defoon capitaine o Jaraaf mm-hmm. parce que capitaine porte parole waaw capitaine porte parole la dafa war wax au nom du groupe waxtu julli jotee ñu ni ko kaay kaay kaay kaay jiite mm-hmm. boole ci di sell ah dan nekk ku nga day sell ba groupe yi dañuy am gàllaaj groupe yi gàllaaj yi ngay gis ci mbër yi nii dana am gàllaaj groupe bi léeg ki gën sell ci groupe bi moo koy porté ki gën sell loolu yëpp ngi ci kooku c'est parce que 83 waaw <laughs> man du ma du passé woon naa capitaine sax. est-ce am na ñu dem ba ne waaw mais xanaa lu nu wax rek ngeen ne Pape Moussa. donc euh, dirigeant yi dañ ma doon woo. te foofu lu lu rëy laa fa jàng. est-ce que lu rëy laa fa jàng. est-ce que je peux dire que sama passage Jaraaf. li ma apporté. Jaraaf école la. waaw non c'est incommensurable. li tubaab di wax waaw. école de la vie boo xam ne la. man li ma jëlee jëlewuma ko université. jaraaf laa ko jëlee li nga jàng ci li ma jàng dëggantaan ci sama àddina. ci jaraaf nga koy jàng jaraaf laa ko jàngee. est-ce vraiment est-ce que jaraaf laa ko jàngee waaw gis parce que euh, Moussa xam nga sa carrière yëpp maa ak ngi soog a jataay tey dëgg la mën naa ni ça fait 30 ans non mosuñu waxtaan te man gëj naa la gis-gis booba neex ça fait 30 ans ci Abidjan waaw Abidjan ba ñu ñu ak Africa waaw waaw suñu voyage bu neex ba quand même mais Moussa defoon ni le match le plus héroïque du jaraaf boobu la Wakam Diouf moo ah ñu yóbbu ah oui man jaraaf def fa zéro zéro ma ndax est-ce que télévisé match boobu mais match boobu ku ko gis ah possibilité match baa ngi nii bii la Pape Moussa di wax euh, dama dem nag ci samay archive indil ko ay photo yu nga xam ni gëm naa ni sax moom amu ko Pape Moussa ici nous sommes à Abidjan le 13 mars 1983 quart de finale aller de la Coupe d'Afrique des clubs champions tey moom la ñuy wax Ligue des champions Pape Moussa capitaine du Jaraaf mu ngi nii di présenter ses joueurs au ministre ivoirien de l'information Laurent Dona Fologo moo nekk nii en costume euh, blanc euh, fële ca fond ba xam ngeen ci Amdi Sarr décédé Chérif Kandji moo nekk nii avec une chevelure très touffue voilà que le ministre Laurent Dona Fologo euh, est en train de saluer Thierno Youm Pape Moussa di ko présenter Thierno groupe baa ngi nii au complet ah debout Euh, sur euh, votre gauche donc sur la droite de l'écran je m'en tiens à votre gauche Laye Camara moo nekk nale debout à gauche sur votre gauche ci wetu lay Camara di Pape Moussa Ndiaye capitaine di suñu invité tey jii après Pape Moussa Ndiaye Cheikh Seck moo nekk nii en maillot blanc ci gauche Cheikh Seck ngeen am fa Thierno Youm euh, ci gauche Thierno Youm Baye Momar Diaw qui venait de l'ASFA ci gauche su Baye Momar Diaw Chérif Kandji gis nga ci match bi la Lay kamara ak Chérif Kandji demee Côte d'Ivoire parce que bi tour retour bi jeexee ASEC dañu dellu si ah ki leen jël si mi ngi tudd Roger Wagnin président section football bu ASEC bi mu ñëwee woon na ma ni ma dama jël si Lay Camara ak Chérif Kandji waaw euh, ci match bi la Lay kamara ak Chérif Kandji demee Abidjan en 1983 léegi accroupi fii ci seen gauche vous avez Cheikh Fam sur la gauche de Cheikh Fam Amdi Sarr moo génn àddina moom laa leen wax tout jonkan ci gauche Amdi ci kanamu benn ballon bi Mayoro Sarr nekkoon latéral droit Moussa Diop moo nekk noonu ci gauche Mayoro Sarr jokkan jonkan ci beneen ballon bi ci gauche Moussa Diop Kenum vous avez Amadou Diop déjà capitaine de réserve parce que fii Moussa Ndiaye moo nekk capitaine Amadou Diop dana jëli plus tard brassard bi ci Moussa Ndiaye bi nga xam ne tey jii moo nekk ci plateau bi. là on est en plein dans le match gis ngeen stade Félix Houphouët-Boigny keroog 45 000 spectateurs venus pousser l'Africa Sport d'Abidjan de Pascal Miezan Moussa Ndiaye ngeen seen nële dans les airs numéro 6 di euh, def son rôle comme on dit de défenseur déménageur lui qui avait commencé comme.

ku nekk subi sa maillot dirigeant ñoo ko doon wàññi mais benn keroog ku nekk un litre d'eau tuuru na foofu. loolu mooy mouiller le maillot mouiller le maillot. ñu ñu wàññi ba mu wow. waaw ñu solaat. dem ak gars yi àndal la ko benn euh, équipe bu Africa bu rëy. nga Pascal Miezan. waaw sama xarit. feu Pascal Miezan ah bon. il est décédé. aïe aïe mhm. Massa. feu Pascal Miezan. mais équipe bu Africa bu rëy. si si bu rëy a rëy. parce que Afrique ca la Chérif Kandji demee à ah. sec. maa la wax loolu. jaraaf dafa dem euh, Africa euh, euh, di di di ko waaj garder. Mhm. assez gaawantu jël ko. mook Lay Camara. waaw Lay Camara ci la Lay Camara ci match boobu la mhm. Lay Camara. waaw ak Chérif Kandji. Mhm. gagné seen place su titulaire à l'ASEC e d'Abidjan. te yéen Africa ngeen doon dajal ASEC jël leen. waaw Africa ak ASEC ñooy GIA Jaraaf. dëgg la à l'époque mais Moussa seen match boobu rëy. bi ngeen qualifié. avec trois tirs au waaw. Cheikh Seck Cheikh Seck arrêté trois tirs au but. Oh. dëgg la waaw moo tax ma gis nga tegtal yi Cheikh Seck yow yaa doon capitaine Cheikh Seck. Ah, retour baa ngi nii. Dakar après Abidjan Dakar et là nous sommes à Dakar deux semaines après 27 mars 1983 Pape Moussa di échanger Fadion ak koo xam ne ndeysaan il s'estimait Pascal Bienzan moo Pape Moussa moo nekk nii euh, sur votre euh, euh, gauche di échanger Fagnon capitaine du Jaraaf Pape Moussa Ndiaye avec Pascal Miezan je le rappelle 27 mars 83 à Dakar match retour. équipe bu 27 mars baa ngi nii à Dakar nous sommes toujours à Demba Diop gis ngeen tamit keroog ni sénégalais yi ñëw gunge si Jaraaf tellement match retour bi résultat ba daf leen neexoon le Jaraaf ce mars. di qualifié en demi final debout Chérif Kandji ah jamono bii afro moo xew léegi de Chérif amatul pepp garaw ma nga ne taxaw à gauche euh, euh, ci seen gauche ci wetam Baye Momar Diaw moom laa présenté tout à l'heure venant de l'ASFA euh, Pape Moussa Ndiaye di suñu ganu tey bi moo nekk noonu ci gauche u Baye Momar Diaw ci gauche u Pape Moussa Ndiaye di Cheikh Seck l'actuel président du Jaraaf de Dakar gis nga ñoom ñaar ñii dend tey jii ñoo nekk aux commandes euh, du Jaraaf 30 euh, euh, ans après Pape Moussa Ndiaye Cheikh Seck ci goosu Cheikh Seck Thierno Youm ah qui allait partir pour Laval après ci goosu Thierno Youm Laye Camara ñoom ñaar ñii ñoo gagné finalu 83 bi sur le centre de Youm Laye Camara met la tête ça fait 1-0 ah finalu 1983 léegi ñu wàcc ci suuf. ñi accroupi à gauche Cheikh Fam modèle de coéquipier ci goosu Cheikh Fam Mayoro Sarr Amdi Sarr a nekk noonu moom laa wax ni euh, moom it il venait de la police décédé ci gauche euh, Amdi Sarr vous avez Amadou Diop le capitaine de réserve j'en parlais tout à l'heure ci gauche Amadou Diop Moussa Diop Kenom le métronome jaraaf bi tamit bare woon na doole moo tax mu dem en demi-finale de Coupe d'Afrique des clubs champions ngoon si nag dafa nekk le soir de gloire de Cheikh Seck damay yëgaat ci Cheikh Seck le soir de gloire de Cheikh Seck dañ def 0-0 Abidjan aller gis ngeen photo yi def 0-0 Ndakaaru retour ci tiro bi yi bañ ca duggee jaraaf teg la ñett tiiram di leen dugal Cheikh Seck teg la ñetti tiiru ivoirien yi jàpp yëpp ñett jaraaf est en demi-finale de Coupe d'Afrique jëm nag di fekki Kotoko de Koumassi. on va recommencer à travailler. waaw ñun. ñun waaw suñu bopp. waaw xam na le chemin qui nous reste à parcourir. mais Moussa recommencer bi nag mi ngi ci garder efficacité. xam nga xale yi aussi. waaw daan naa wax naan li ma neex ci jaraaf. Mhm. dama kay wax ci kaw parce que dama gis joueurs yu nga xam ne seen carrière dafay yàq ci loolu. Mhm. jaraaf di ko def di accompagner joueur bi. li ma neex ci jaraaf lu ñu lay yaakaar yaakaar yaakaar Moussa Badiane le disait. oui quand Moussa le Jaraaf était à la porte d'une finale de coupe du Sénégal contre Linguère mhm. une mhm. semaine mhm. ñu bàyyi ko mu dem Jaraaf luñ lay yaakaar yaakaar su contrat taxawee ñu bàyyi la nga dem parce qu'ils ont toujours di par le maillot on réalise des hommes nous voulons réussir là où la famille a échoué par rapport aux joueurs moo tax est-ce que joueurs yi bu ñu amee contrat dana jar ngeen garder leen sinon bàyyi leen ñu dem euh, wax nga lépp ba pare <laughs> du ñu garder joueur ah très bien du ñu garder joueur très bien et ça c'est xam nga léegi football tu te réalises socialement. à travers le football jërëjëf naa xañ xale. jërëjëf ëpp naa xañ boo gisee même à un niveau inférieur. di mhm. leen seen parents yi di jàppee. ñu leen di encadrer yaakaar si ñoom. ñoom très bien boo amee contrat kañ. nga bàyyi ko nga bàyyi ko mu dem. parce que le joueur ici mënuloo ko jox lu weesu. ah 1 million ah. léegi de sax jox. waaw ah, waaw ko. mu war am fee 100 millions. sori ko laaj dëkk kay jox bàyyi tiitaloo ko. sori nañ ko laaj franchement. <laughs> oui oui c'est ça alors le problème c'est celui-là. Mhm. moo tax le match que vous vous pouvez gagner c'est celui de la réalisation des hommes. parce que man toujours dit euh, nit ki. Mhm. tekki. Mhm. moo gën gagner coupe kooku nag jaraaf moom. waaw du fayir si mission très bien. parce que yaru yeewu yeete. yeete <laughs> mooy devise daal ça veut ça veut dire de choses. xoolal sa kaw ba sa suuf. wax nga dëgg la wax yaru yeewu yeete <laughs> yaru yeewu yeete. kooku histoire la nee naa leen ku wax feeñ lii moo taxoon Pape Moussa nekk capitaine pour la première fois ñu toog waxtaan. mais li ko indi c'est le jaraaf moom le plus gradé pour avoir été un jour parmi ses acteurs. demi-finaliste de la Coupe d'Afrique en 83 Moussa époque boobu di koy waxtaan ak joueurs xam nañ ñu def nga lool. yow euh, yow nekk tey président section football xale yi xam nañ ñu def nga lool. non nit ñee leen koy rappelé. nit ñee leen xam nga même man laay. Ah. man sama sama carrière sportive. Ah. événement boobu dafa marqué ñu bari. man ku ma gëj a gis ku may wax rek dag may wax 83 sa but ba. contre Kotoko. mooy sama identité man. Kotoko <laughs> waaw contre Kotoko. de temps en temps bu nu toogee ak booy yi nit a leen koy rappelé. waay waay Lablaye Sarr. Mhm. mu ne peut-être kii xamu leen ko mais ki moo def lii moo def lii. ah mais match boobu moom ma marqué. te mooy moo ma collé ba léegi à la ah, peau li ñuy wax. ba léegi moo ma collé à ah, la peau. c'est un but d'athlète. mais match mémorable. laay dama doon dégluwaat sa reportage bi. ah mémorable match mais defe naa ne sa reportage boobu. Ah. ak reportage Sénégal Togo. waaw à taawu ñoom Sega Sakho. waay waay man yooyu daf ma marqué. li nga def. waay dëgg la. ana beneen mm-hmm. li nga def. Mm-hmm. football nañu jaraaf dem ko demi finale. Mm-hmm. ana beneen capitaine yu jaraaf vieux fay defu ko. mais doon tànn jaraaf yi bi ma ci gën a neex. dafa toog fi ma nekk yow jaraaf yi ban moo la ci gën a neex. mu ni ma bu ñoom Ayanda bi mu vivre. waaw ñoom bu ñoom Ayanda moo ko ci gën a neex. Euh, ak euh, ak kana ci ci ci ci ci gannaaw euh, ñoom Mansour Mbaye. waaw nee na booboo ko gën a neex. Mhm. ma ni ko man bi mu gën a neex mooy bu ñoom Louis Camara ak Matar Niang. dëgg la ak Petit Diat Diémé. dëgg la ah. léegi bu ñu gën gradé yow yaay <laughs> <laughs> loolu moo la fi indi Pape Moussa. dëgg la dëgg la moo tax ma ni épopée boobu. waaw ngeen dem au Ghana. perdre 2-0 après avoir gagné ici 2-1 ba léegi Pape Diouf dafa ma doon wax Birane Ngom bu dugalee suñu balu coup d'envoi ba rek. jeex na kootu du dellu jeex na non mais laay manque d'expérience. Mmh. en Coupe d'Afrique. oui oui. dafa am lu muy indi du ñëw match aller bi ñu def match boo xam ne macha allah mais laay xam nga am na pendant du ma wax 3 minutes 3 minutes dafa bëri 2 minutes bal bi génnul. est-ce que seen match Kotoko. Kotoko bal bi man j'ai remarqué ne 2 minutes góol jàpp ko. génnul si touche. génnul corner boobu temps boobu temps Opoku Enti. waaw dàq football ay moom laa moom lan ma jox nag ne ma jël ko. waaw Opoku Enti man kay gis naa la ba nga fay bàyyi di dugal deuxième bi. maa la wax loolu <laughs> mais ñu toog match bu rëy. ah très grand match. ñu ko la le match waaw. fekk Birane moo. janoo premier coup d'envoi. fii Mayoro Sarr moo janoo coup d'envoi. waaw dund piib rek mu janoo. mu janoo ñu def def ko <laughs> si biti. gis nga man bi ma dugal bii bi li ma yëkkati sax xaw ma ko. est-ce que waaw mais parce que naa ba passé au delà de. j'étais plus moi-même. parce que sénégalais yuy jóg. waaw ci bal bu kawee di ko mbëkk ci camp. waaw bareewul. waay waay man Moussa a marqué li may yëkkati sax. Ah, dama xamul lan la. un très grand but. ñu dem. 30 ans après su ma koy fàttaliku. waaw ah. waaw c'est parce que c'était grand. waaw ah, waay après ngeen dem fan. ñu dem retour ba malheureusement li nu amoon yëpp ma dañ koy waxtaan man suuba ak Amadou Diop bébé bébé laa koy wax. waaw dañoo wax booy baa nii Amadou Diop <laughs> waaw. ñu dem def benn match amical contre ASEC le jeudi. à Abidjan Abidjan. mais Moussa maa ngi rappelé loolu semaine dernière dafa am benn waay bu ni ma Ablaye xam nga lu ma jaaxal ma ne ko lan la jaraaf bi mu fi jóge di dem di dem Ghana mhm. victoire la duggee ci avion bi dafa am lu ma jaaxal ma ni ko ah jaraaf de jaar na ASEC jaar na Abidjan mhm. gañu fa 3-2 mu jàpp boppam guddi mu ma victoire Ghana ba la ñu def ci Abidjan non <laughs> mais ñu def benn mode match boo xam ne ak ASEC dañ ko tandu laay mën naa la wax loolu est-ce dañ fa def benn mode de match ma ne ah ñun joué nañu suñu final ba. voilà match bi ngeen waroon defi euh, Koumassi. moom ngeen def. Abidjan loolu laay wax manque d' expérience. ñu boole si nag temps yooyu avion présidentiel dañ ko bàyyi à disposition. ñu jógee fa jouru match ba. à 9h la ñu jógee Abidjan pour dem Koumassi. Koumassi bisu match ba. manque d' expérience. non manque d' expérience wàcc. waaw coup d' état am. coup d' bi fekk non fekk fa coup d' waaw ñu wàcce militaire yi ne doo leen génne benn bagage. fouillé nu génn suñu bagage yëpp teg si suuf 11h la ñu génn. war a jouer l' après midi. war a jouer après midi. ñu ngi noonu. dem mise en train amul si biir vestiaire yi si biti lañ ko defee si couloir yi cent mille personnes cent mille. Ah, personnes ah kottu koo ngi noonu ñëpp sol lu xonk. ay ñu bëri yar mu nen. Pape Moussa il fallait être solide. solide pour pour te dire. mais tenir nañu ba mu des vingt minutes. si si si si si si waaw fi may daaneele ak yow nag. Mm. ku def loolu dana dem équipe nationale. waaw dëgg la. sa équipe nationale am naa ci benn photo bi mu ci gën a neex moo di Cabralu 83. bi Mauritanie di inaugurer son stade. Mm-hmm. tu es avec Roger Mendy. avec Thierno Youm. Mm-hmm. avec Amadou Diop. Bokandé. ah euh, waaja na mu tudd. Cheikh Seck. Cheikh Seck nga ca. Mhm. Euh, Joseph euh, Koto. Euh, Pape Sagna ak Lamine Dabo. waaw waaw ndeysaan. Pape Sagna ak Lamine Dabo waaw sa passage équipe nationale aussi am na ci match yu la marqué avec le Jaraaf si Kotoko. waaw avec l' équipe nationale ban match moo la marqué. match bi marqué dëggantaan mooy Alger ba nu demee. Mhm. war fa jouer match retour Coupe d' Afrique. ci guddi ga sa guddi ga. nocturne na ba def fii un 1 dem fale. de perdre 2-0 perdre 2-0. avec Oumar Gueye Sène et Baba Touré. ah la wax loolu. wallaay. est-ce que c'était la belle époque. ah belle <laughs> époque très grande équipe boobu c'était en 84. waaw 84 fekk fekk fekk Algérie jógee coupe du monde. exactement. oui oui fii c'est c'est taw égalise après avoir offert le but à Ben Saoula. waaw ah, def na carrière ah, encyclopédie nga laay <laughs> li ngay wax sax man bi joué match bi je me rappelle pas. <laughs> li mu def ak Jaraaf en 1983 ku ko def ñëw en équipe nationale benn photo mi ngi nii en équipe nationale et comme année dafa fekk encore Jaraaf di régner sur ce 11 là. am ngeen ci cinq joueurs du Jaraaf en un mot le Jaraaf avait ossaturé cette équipe nationale du Sénégal du début des années 80 nous sommes d'ailleurs en 1983 alors Moussa Ndiaye il est debout bi yoon sur votre gauche il était le capitaine du Jaraaf ci euh, gauche Moussa Ndiaye Mamadou Taw ci gauche Mamadou Taw Oumar Touré autre défenseur du Jaraaf c'est le deuxième Jaraaf euh, de ce groupe ci gauche Oumar Touré en maillot blanc Mansour Wade décédé ci gauche euh, euh, Mansour Wade Thierno Youm c'est le troisième jaraaf du groupe Roger Mendy est sur la gauche de euh, Thierno Youm Roger Mendy bi nga xam ne bërki démb bi fi Georges Weah jaaree à Dakar dafa ne vous tenez en lui le meilleur libéro au monde de tous les temps lui Euh, Roger Mendy moo ti nekkul ci benn plan de développement du football au Sénégal même pas avec la petite catégorie accroupi à gauche Amadou Diop dont je disais capitaine de réserve au Jaraaf donc c'est le quatrième Jaraaf euh, de de de de cette équipe nationale sur la gauche de Amadou Diop Amadou Diop mi yore ballon bi sur sa gauche vous avez Birane Ngom le cinquième Jaraaf de cet équipe nationale sur la gauche de Birane Ngom Pape Sagna décédé en France des suites d'un accident de la circulation fa lañ ko denc France ba mu décédé sur la gauche de Pape qui venait de l'espoir de Bignona avant d'aller à la police parce que bi muy ñëw en équipe nationale il était sous le maillot de la police donc sur la gauche de Pape Sagna vous avez aussi Lamine Dabo qui venait de l'ASFA lui aussi est décédé sur la gauche de Lamine Dabo Assane Gassama dafa ma woo barki démb Ablaye ni ma sama doom jama maye woon daaw ah, la moom la ñuy ngénte euh, doomam bërki démb ma ne ko kon léegi tu es grand père ma ne gaa gaa yi nag yaa leen njëkk nekk grand père Assane Gassama qui venait lui du Diel Diop le voilà sur euh, votre droite donc sur la gauche de Lamine Dabo kon ki moo di euh, une des équipes nationales yi nga xam ni Pape Moussa daf ko dooleel moom Pape Moussa Ndiaye mi nga xam ni tey jii moom lay dalal ci plateau bi. man doy na ma caxtaan yi ma tamit ma bàyyi la nga tàggoo ma ngi lay gërëm lay di kontaan parce man dama ne dama wax souvent ñu mel ni yow. jërëjëf Ndiaye de leur vivant lañ leen war a. jërëjëf Ndiaye euh, consacré. jërëjëf jërëjëf consacré. jërëjëf Ndiaye je cherche le mot mais je l'ai pas mën na wax li ma bëgg a wax. jërëjëf Ndiaye. je crois que yàlla na la yàlla may ngay. amiin suñu kanam amiin lii yëpp ñu fekk nag balaa ma pare quand même may permettre sama jabar bu ma moo ma wax moo ma yóbbante. ndeysaan. mu ne boo demee daal nga laajal ma tonton laay. Ah. bi ma koy seetaan ba léegi. Ah. il est toujours jeune. nda <laughs> la wax lan la soxna yi di def <laughs> comme ça. lu ko soxla yi toppatoo mu garder jeunesse bi laay merci beaucoup ndika danaa la jox recette bi waaw ah, amul benn problème soxna si ah. recette boo bëgg gis ci man naa ko jox Pape Moussa ah, comme ça ànd bi gën a yàgg gën a dëgg la kontaan naa Ndiaye kontaan naa trop man maa la gën a kontaan naa trop kon Pape Moussa laa leen indil tey le capitaine du Jaraaf le plus gradé moom laa leen wax vous en trouverez ñu gën a titré euh, coupe du Sénégal bi diggante ay Mbaye Fall ay Amadou Diop gagné nañ ko ba tey. mais lui c' est le plus titré parce que def na demi finale Coupe d' Afrique su fekkee ne ànd na ceeg Amadou Diop. ak keneen moo doon capitaine am. dëgg la waaw ku nekk capitaine wu Cheikh Seck. Mhm. nekk capitaine wu Thierno Youm. Mhm. nekk capitaine wu Amadou Diop. Mhm. ak Chérif Kandji bu tàkkusaan jotee ñun la kaay jiite. dëgg la Moussa ma bàyyi la. capitaine Mbaye Fall capitaine Mbaye Fall. dëgg la Mbaye Fall. waaw le nga di gërëm euh, téléspectateur yi. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. vraiment di la encouragé. merci Ndiaye. yàlla gën la bàyyi sunu kanam. jërëjëf Ndiaye parce que yow. icône nga. jërëjëf Ndiaye dañ la soxla encore. jërëjëf Ndiaye sa réflexion moom. <laughs> dafay lii tubaab di wax vivacité. vivacité <laughs> moom la. gaa ñi jërëjëf indil naa leen kuréel ngeen gis ku ngeen namoon ku nga xam ne exemple la. Pape Moussa Ndiaye capitaine au Jaraaf le Jaraaf est si grand que du juum ci capitana ku mu def capitaine rek. Mhm. soo ko dégloo plus tard mu wax. nga ni ah lii moo taxoon ñu def ko capitaine parce que jaraaf dafa yàgg di wax attention dajewuñu ay footballeur pour ñu football gagné. Mhm. dañu daje ay xaleel pour ñu gagner la bataille de la vie. Mhm. Pape sa reconversion. waaw moom laa doon wut maa ngi naan am na lu ma bëggoon laaj. nekkatoo Dakar foo nekk. man maa ngi France depuis 32 ans. 84 non 84 depuis 30 ans. waaw maa ngi France. waaw à Nice dans le sud. da ngay dem rek di jaabante di dellu si. di jaaba parce que la famille est encore là-bas sax. waaw mais ku nekk France nag la mën a nekk président section football. waaw justement xam nga bi ma ñëwee yaa dama fi ñëw yaa 6 mois chaque année ma ñëw damay ñëw lu bari. Uh-huh. ma ñëw Mbaye Mbengue ak Amadou Diop xëcc ma ne ma vraiment dañu bëgg a doomu club bi jël. section bi section bi et jël équipe bi. Uh-huh. mais très rapidement ñu ne Cheikh la ñu bëgg mu nekk président mais man la man dëkkuma fi ñu ne ma non yow. xam nga mooy rôle capitaine bi rek. ñu ne yow foog nga toog parce que bataille bi mun koy def il faut nga jiite ko si laa toog na moom laa wax léegi bu tax jotee yaay jiite julli. voilà si laa toog jël ay sacrifice mais loolu. Hmm. ma si kontaan parce que sacrifice yi daf ko jar. Hmm. parce que jaraaf la. parce que jaraaf maa tout donné dama ko koy delloo. est-ce que def li ñuy def ba jàmm def ñu jël affaire bi léegi ma toog. Hmm. ma toog loolu moo la dëj Dakar moo ma dëj Dakar. mais nag Dakar maa ngi Saly depuis huit ans maintenant Saly laa dëkk. bu ma ñëwee foofu laay laaxatu. <laughs> moo tax kenn du ma gis. <laughs> ba gaa yi dem rocc ba. <laughs> waaw ñëw indi léegi waaw diggante Saly Dakar bi dina gaaw dëgg la gaa ñi mi ngi nii capitaine Moussa Ndiaye capitaine Moussa Ndiaye le capitaine le plus gradé au Jaraaf moom laa leen indil tey ñu namantiku ko ensemble maag moom gëj def lii depuis dëgg la Jaraaf Africa Sport d'Abidjan. à Abidjan ñu ànd Wagan Diouf. di chef de délégation. Wagan ñu ngi lay nuyu. man tamit maa ngi koy nuyu bu baax sama président. waaw toujours daf may wax ne ah mon capitaine. Oh, ah, ci grand <laughs> capitaine. waaw waaw dëgg la ci grand capitaine nu jaraaf dëgg la kon bi moo indi Pape Moussa Ndiaye ak jaraaf du ñàkk nag ma indi prochaine émission ku ko jege ci jaraaf te am ouverture aussi ci jàmbaar di ànd ak yéen di defaale ba tey actualité ñëwoon démb jërëjëf.